ashaabihi ajmain mbokk yi wa rahmatullahi wa barakaatu. ñu daal dellusi rek ci sunu ñeenteel bi jataay ci sunu dars tawxid pour ñi nga xam ni dañuy doog a door te mu tënku ci bataaxal bu ndaw boobu di risaala boobu nga xam ni mooy talqiinul ictiqaad li sibyaan wal awlaad bu cheikh muhammad bun ibrahim al misri xafidahu taala xam ngeen ne ca bind bu njëkk ba gisoon nañ man rabbuka kan mooy sa borom ñaareelu bind bi ñu jàng maa diinuka lan mooy sa diina ñetteelu bind bi ñu jàng man nabiyuka kan mooy sa yonant kon bu ko defee ci bind bi dañuy daal di ñëw ci ñeenteelu laaj bi ñeenteelu laaj boobu nag mbokk yi laaj bu am solo la mu ne ayna allah ana yàlla tontu ba mu ne fi sama mu ne yàlla de ma nga ca kaw asamaan comme na ngeen ko déggee laaj boobu di ayna allah ana yàlla yonante alayhi salaatu wasalaam na ko kenn gis nga ba ko kooku tontoo fi sama yàlla nga ca kaw mu ne ko man may kan mu ne ko yow yaay yonant bi yonant bi alayhi salaatu wasalaam seedeel ko ngëm ne kii ko gëm ma ngoog ne ko kon gis nga tomb bi dafa bokk ci tombi pas-pas yu am solo yi yi nga xamante ni nii jullit bi da ko war a yittewoo mbirum pas-pas moom ab jullit waru cee sàggan waru cee sàggan fas-fas maanaam li xol bi war a fas li xol bi war a gëm mooy tombi ngëm yi xam nga xol da koy fas xol da koy gëm gëm ba ko xol di gëm la ñuy tuddee pas-pas ma ngoog bokkul ak Pastef nga xam ni la muy tekki mooy farlu ma ñoom ñaar dañoo jegewoo te bokkuñu bu ko defee tomb bi tomb bu am solo la ma ndax dafa bëri jiixi jaaxa gu ko jege xam nga dara lépp loo gis presque rek muy yàqu day fekk mu am lu ko xaw a nuru te nekk ko ñenn ñu bari dañ ci confondre dañ ciy jaxase ay mbir yu ci bokkul bokk na ca mooy ñooñee nga dégg ñu naan yàllaa ngi fépp loolu njuumte la du pas-pas bu wér wax jooju wérul wérul ci alquran wérul ci sunna yonent bi alayhi salaatu wasalaam wérul ci mag ñu baax ñi ñu mel ni ñoom imaam malik ak ñoom imaam malik rahimahullahu taala dafa doon wax mu ne allahu azza wa jalla fi sama wa ilmuhu fi kulli makan moom imam malik mu ne yàlla mu kawe mi ma nga ca kaw asamaan waaye xam-xamam mi ngi fépp xam-xamam daj na lépp ñu bari nag dañuy jaawale yàlla mi ngi ci kaw asamaan ak xam-xamu yàlla daj na fépp ba ñu naan yàllaa ngi fépp moo tax boo xóotalee ci leeral leen rek ñu ne la noo li ma si jublu mooy xam-xamam mi ngi fépp parce que xam na lépp mais tamit am na ci ñenn ñuy wax loolu boo xóotalee ñoom dañoo am beneen gëm-gëm bu lalu ci suufu loolu gëm-gëm bu ñaaw mooy ne ñoom gëmuñu existence yàlla ci melokaan yi nga xam ne noonu la rotee ci alxuraan ak sunna déedéet neneen lañ ko gëmee ñoom daal jàpp nañ ni yàlla daal cib tur képp la yem cib tur du dara yàlla du dara quoi ma benn genre entité la boo xamante ni daal dafa xam lépp dégg lépp rek mais maanaam du loo xam ni mën nañ ne am na ñenn ñi foofu la ñuy àgg ji boo xuseeg ñoom ba foofu loolu yëpp pas-pasu yàqu la ma loolee lépp pas-pasu sunu boroom. joxe na ay xibaar ay information yu leer naññ ci moom mi ngi ci alxuraanam ji ñun ñoo ko jàngul képp kon bunt bi muy ayna allah dafa bokk ci bunt bi dikk aju ci melokaani borom bi tabaraka wa ndax xam ngeen ne comme niñ ko doon jàngee ci sunu dars yële ci buntu asma wa sifaat sunu borom jalla waala dafa meloo mboole melokaanu mat ak kawe te aku kawe melokaanu mat la yëkkatiku melokaanu mat la féete kaw lépp sunu borom moo tiim lépp dara tiimu ko moo tiim mbindeefam yëpp arash moo mee ngeen di dégg mbindeef la mooy mbindeef bi gën a rëy sunu borom a tiim moo tax boroom xam-xam yi ne ba ñu càmbaree xool alquran gis nañ ne sunu boroom jalla dafa làmboo dafa meloo mboolem melokaanu kawe muy lan uluwu zaat uluwu sha'n ak uluwu qahr kawe jëmm ci jëmmam aji kawe la kon gis nga sunu borom dafa am jëmm mais ñenn ñi dañoo jàpp ni sunu du amul jëmm loolu pas bu yàqu la sunu borom dafa am kawe jëmm beneen bi mooy kawe dayo aji kawe la ci dayoom ñenn ñi dañuy saxal kawe dayo bi waaye duñu saxal kawe jëmm bi te ñoom ñaar ñoo ànd ngoog ndax sunu borom moom jalla wa moo tiim lépp dara tiimu ko beneen bi mooy kawek nooteel uluwu qahr kon dégg li imam malik wax mu ne yàlla ma nga ca kaw asamaan yàlla tiim lépp arrahmanu ala al arsh istawa noonu la ko alquran waxee mu bokk ci dalil yi ayna allah fi sama ma dalil arrahmanu ala al arshi sawa kon tegtal a ngi noonu ci alquran mu ne arrahman muy yàlla boroom yërmande ji ala ma nga la nga xamante ni mooy arsh ala foofu lan lay tegtale al ulu wal istila aku lay tegtale foofu su àndeek nag rawatina nag mu ànd sax baatu istawaa waaye xam-xamam mi ngi fépp xam-xamam moo daj lépp nga wax ji bul jaawale kon ñaar yooyu ñu bëri seen lëntënant fii la nekk moo tax imaam Malik faram fàcce ko leeral ko imaam Malik mi ngeen xam waaw te nga xam ni sunu réew mi ñu bëri dañ ne dañuy woote woon ñu ngi ci ngiru imaam Malik mais boo leen xoolee ci li imaam Malik jàngale ay wax imaam Malik ak lam fi ba ak ñu kaa sori ñu ci bëri ci pas-pas surtout ci pas-pas surtout nag ci wàllu ngëm surtout. day fekk imam malik wax lii ñoom ñu gëm leneen ba pare naan ñun ci ngiru imam malik lañ nekk wallahul mustaan kon bu ko defee ñu teg foofu sunu baaram ñaan borom bi jalla waala mu defal ñu tawfiq defal leen ko defal ñu taysir defal leen ko assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu